Touba Darou Khoudoss. na ko aj tuuti aj ko. waaw mu nga waaw. mbooloo mi fukki fi kanamu sëriñ bi. Mhm. mooy daayrat Miftaaxul Munaa Touba Darou Khoudoss. Mhm. yitte ji nag euh, dara warlu ko. Mhm. ñëw rek ngir siyaare jëmmi sëriñ bi. ñu ngi ko dale woon ci sëñ Cheikh Jom di ñaan suñu borom yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem. ñu depuis daaw ñu ngi ko commencé ci sëriñ bi. di ñaanit suñu boroom yàggal ko fi lool euh, te may ko wér ñu ñu ñu yàgg ko fee fekk yitte ji moom euh, dara waralu ko rek lu dut jóg ngir ziyaare ji comme ni ko sëriñ bokkoon ne zurman tuhibbu wa in chattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa awaaru la yamnaannaka bu'dun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu zawaaru del waxaan ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati loolu rek la mbooloo mi jóg ngir gën ngir jëmmal ko ci sëriñ bi ndax kenn ku nekk xam na ne ku wax sëriñ bu mag bi sëriñ bu baax suñ ciy teg mooy suñu maam maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mooy buntu yoon te yoon wi jàpp naa ne ku ci bëgg dara maam faw nga ñëw ci e, kër Cheikh Ibra loolu mooy yëkkati mbooloo mi ñu ñëw nag ngir ñëw ñaanal sëriñ mu yàgg fi lool yàgg fi suñu kanam ba liggéey bi ne ci kanamam lépp mu mottali ko ba naalaat yeneen ba mottaliwaat ko te ànd kook ñun waaye ngir ñëw yi tamit di sàkku ci moom ay ñaan bu baax a baax a baax ci ci ci mbooloo mi suñ borom gën leen a taxaw gën leen a kàttanal gën leen a gën leen a may wérit ba ñoom lépp lu ñu euh, bëgg ci liggéeyu sëriñ bi ñu defe ko niñ ko bëggee ba amee ci ñu kawe njort te yaakaar nañ ko fii lool comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen gi maam ku bëgg dara ci yoonu sëriñ bi moom faw nga boole ci Cheikh Ibra looloo tax ñu am yéene ak yitte ba waral ñu ñëw fii daal loolu mooy suñuy suñuy kàddu loolu itam mooy mooy suñuy tànk di tuub baax ci eh, kàddu yi ñëkkati ci kanamu sëriñ bi xam naa addee ji mu moo nekk nii di ñaanal rek suñ borom yàggal ko fi lool te may ko wér moom di sàkkuwaat ci moom ñaan bu baax a baax a baax ci daara ji waaw mu ñaanal jëwriñ yi ñaanal mbooloom yëpp ba daara ji yëkkati ko lool màgg lool ba pakk yeeg yëpp yi tamit mu ñaanal ñu ci yooyu ba ñu mucc ci bu baax a baax a baax ñu ngi tubaat baax ci kàddu yi jërëjëf. muy teew si kanamu sëriñ bi mooy daayira Miftaahu Muna bu bu Daaru Xuddoos waaw daa mel na ñëwoon nañ fi daaw doon siyaare si sëriñ bi doon kàddu yi ñu jottali nag mooy seen tànk yi li leen tax a jóg mo mo mooy ñëw joyal si seenub siyaar si jëmmi siyaara Faal ji di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di sàkkul sëriñ bi ñaanal leen ba liggéey bi nga xam ne si lañ nekk te ay di ay tuut tànk eh, muy liggéeyal sëriñ bi sama borom eh, dimbali leen ba nu àgg si foo xam ne fii fan fan si bëgg àgg nu àgg fa eh, yittey siyaar daal moo leen yëkkati di la siyaare si ak di la ñaanal di sàkku nga ñaanal leen danoo bëgg doon ay taalibe doon ay murid saadex ñoo xam ne dañu doon liggéeyaa ko nu sëñ Tuubaa ak Seera Faal ndax ku tudd sëñ Tuubaa nee na tudd Seex ra xam nañ ne mun kenn mënta liggéeyal sëñ Touba loolu ni nga jaar si tànk maam Cheikh Ibrahima Fall loolooy sababu tey jii ñoom ñëpp ñu dajaloo nag li si ëpp di ay tuut tànk ñëw fii fi yow jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ji di la siyaare si lii seen addiya la fukki junni la ñoo ko indi ñoo doon tudd yàlla noonu nag si xasida yi eh, ñëw di la siyaare si Fall sàkku nga ñaanal leen eh, te téyel leen seen liggéey bi boobu si dara laal suuf barkeb Cheikh Ibrahima Fall

sëñ Mbaye Diop moo jiite daara Diop. moo jiite daara Diop. waaw waaw salaamaaleykum wa barakaatu. Mm-hmm. mbokki taalibe sëriñ baa ngi leen di nuyu. di jottali ay cantam ak i ngërëmam mu jëm si yéen mm-hmm. li ko waral nag mooy yitte ji ngeen am ak taxawaay bi teew gi teew ngeen teew ci kanamam tey jii mm-hmm. noonu ko jëwriñ ji waxee te siyaare rek tax leen a jóg muy nemm ko sëriñ bi te loolu di ndig di loo xam ne suñu sëñ moo ko digle woon santaane ko am lu bari lu mu si dël nag ka nga xam ne joxe na ko euh, tey jii yàlla suñu borom taw féexal leen ngeen ñëw fi moom siyaare ko ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu xolam sedd na si te mi ngi leen si sant mi ngi leen gërëm te mi ngi leen di ñaanal li ngeen indi fii muy addiye ji jot na si te nangul na leen ko moom it xolam sedd na si bu baax a baax yitte jéeg yéene jéeg farlu gi yëpp nag ak doxin wii nga xam ne moom ngeen di doxin nag loolu daje naa ak mbégteem ndax eh, tege ci aw yoon mooy tax a àgg fa nu jëm li ëpp ci yéen xañ na ay ndaw lañ ndaw nag mooy doon mag ëllëg kon képp koy suuxat da suuxat ndaw fexe ba mu tege ci yoon woo ne wii ba ëllëgee dana amal njariñ ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ko jiitu woon yéen nag yoon wii ngeen jaar nag xel dal na ci yéen bu baax a baax a baax waaw la li sëñ Tuubaa di wax eh, ne ndaw ñi nañ nañ sax si ak jub rek yaayol si xaar la tas sawul anil xuda babil xoloo mi eh, xam nga eh, jub moom ak ak ak ak ak sakku xam-xam si la murit yi mën a jaar ndaw yi murit yi mën a jaar ngir taawu liggéeyu sëñ Tuubaa bii ba eggale ko fa mu bëgg mu àgg fa yoon woowu nag mooy yoon yi ngeen tege kon sëriñ bi nee na sant na si bëgg na si ñu ngi leen si ñaanal yàlla yàlla taxaw leen ngeen am fanu gudd ngeen wér te ngeen am xéewal yi ngeen mën a liggéeyal sëriñ bi nu ngeen ko bëggee ngeen mën ko noonu ni ngeen fi teewoon daaw ren ngeen dellusiwaat ak yokkute yàlla na ngeen fi teewaat dëgg déwén te ñu fekkaat fi sëriñ bi ak ñi fi sëriñ bi ñëpp nag mu ànd ak yokkute euh, barkeb Cheikh Ibrahima Fall li ngeen fi sàkku lépp yàlla na ko suñu borom def mu ne mi ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen di sàkku li seeni xol seeni bëgg yàlla na ko suñu borom defal barkeb Cheikh Ibrahima Fall nee na xolam sedd na nangul na leen liggéey bi nangu leen ziar bi Eh, nangu leen lépp rek loolu nag doy na xel mu dal nag waaw ndax nee na liggéey bu jógee bu bu bu ñëm sëñ Tuubaa moom ak Cheikh Rafal moom bu ko ay ndaw taawoo di ko def moom loolu doy na xel mu dal kon nag nañ ci sant bu baax a baax te xam ne lépp kanam la jëm day gën a baax rek nañ gën a góor góor lu gën a jàpp rek toqi ndaw ñi rek waaw te si si yoon wi rek eh, te ban koo wàcc jëm fenn nag waaw nee naa ne xel moom mën naa dem ci géej dem ci garab yi waaye tànk moom tege yoon mooy tax mu àgg fa mu jëm waaw suñu xel yi nañ ko tënk si eh, li nu Seera Faal fàggul rek si sëñ Tuubaa wan ñu ne li li fiy jëriñ dama ab morit mooy bëgg sëriñ bi te yàlla rek tax ak liggéeyal ko te yàlla rek tax yaar yooyu dara dolli si leen lu ñu leen si dolli rek xam ne dañ dañuy wut a sànq te loolu yomb na lool si jamono jii ñu ne ay ndaw yoo xam ne danoo jóg xeeb la seen ne woon ak seen i maam woon wala di ko diingat jaar yoon yeneen yoon yoo xam ne amul amul leen benn njariñ waaye ñii nga xam ne dañoo jaayoon seenu dund lépp ba ñu am nooflaay bii ku yaakaar ne mën ngaa jaar weneen yoon am njariñ wudul woowa dangay nax sa bopp rek kon nañu suñu waxtaan ak suñu lépp nañ ko joyal foofu xam ne ndono li nu fi bàyyi lu nu war a sàmm la te téye ko te xam ne bu nu ko sàmmul téye ko yeneen mbindeef danañ ñëw njariñoo ko su boobaa nag nun ñooy ñàkk rek nañ ci góorgóorlu lu baax a baax waaw loolu suñu waxoon ay ndénkaan la waaw yéen ñi nga xam yéen jiitu nag di di di jëwriñ yi ñu topp seen ginnaaw ñëpp nag eh, na leen di soññ si loolu waaw nañuy góorlu di sàmm ndono kilifa yi nu fi bàyyil dëkk bi lu ne am na fi nag léegi nii lu ne am na fi ñaan nag bu nangoo lëjal borom waaw waaye fii ngay gis ndaw lu toog ak waajuram wengal mbaxanaam wala mu taal tànkam wala mu joxe ñetti baaram wala mu wax ñu tontu te yooyu yëpp bokk Cheikh Fall fi mu tënkoon ak taalibe ay jikko la jikko yi nag yar ak i teggin moo si jiitu fonk say kilifa fonk say wajur déglu sëriñ bi lu mu la digal nga def lu mu la tere nga bàyyi loolu foofu na suñu waxtaan ak suñuy pexe lépp jëm foofu loolu mooy sàmm ndonool sëriñ bi te buñ ko sàmmee rek li nu bëgg lépp danañ ko am àddina ak àllaaxira jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu kon nu tàllal sëriñ bi waaw waaw waaw dañuy ñaan ba noppi rek mën na tàllal sëriñ bi ñaan su ko defee mu seen bu leen soobee ngeen waaw waaw nañ tàllal sëriñ bi ñaan rek comme day am yeneen gan yuy ñëw di nuyoo Ah, waaw kon na ñëpp tàllal tey wax amin sëriñ bi ñaan waaw amin Fall amin amin amin amin raayo leen waaw na ñëpp ñaan sëriñ bi yàgg fi te wér yaa jumlatan qad sallaso bi dalalihim man lam yakun كل